صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmaina wa an taabiina wa taabii taabiina wa anna maahum jamian bi ixsaanin ila yawmi ddiini wa radiyallahu an alqutbil xatmi sayidi wa mawlaaya cheikh ahmad ibn mohammad attijaani alxasani wa an saa'iri xulafaaihi wa muqaddamihi wa ahbaabihi wa ridallahi taam an waarifi sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa xalifatihi sayidi abi ishaq cheikh alxaaji ibrahim ñas ajlil xaaji abdulilahi radiallahu anhum jamian bokk yi seetaan barham universel média wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq may ñaan ñu may ma ma jiital ci kàddu gi di jagleel nuyoo ak ziyaara suñu xalifa suñu wasila xalifatu saaxibil fayda alxalifa almuazam sayidi cheikh xaaj Mouhamadul Mahi ibnu wa xalifatu saaxibil fayda cheikh al islaami alxaaj ibrahim ñas buñ ko nuyoo ziyaara ko jaar nañ ci moom ziyaara mboolem ay bokkam yu baax yi ci góor ak jigéen waaye rawatina imaamu alfayda wa imaamu masjidi jaamii cheikh sayidi cheikh ahmadin mohamad tidiane sayidi cheikh ahmad ali Cissé buñ bu ñu nuyoo sëriñ bi muy xalifa bi nuyu nañ mu xaddam yi fuñ mënta nekk ak xolofaaw yi ak taalibe ak soppe waaye nuy nañ nuyu nañ jullit yépp sëriñ Bara maa ngi am mbégte beneen yoon di jàkkarloo ak yéen waaw naa mënoon naa ko tënk ci benn baat rek <laughs> eh, Cheikh Ibrahim ba dëkk dëkk bu ñuy wax Ngodi Ba département bu Kaffrine région de Kaffrine soqeekoo ci ay baay ñoo alaaji Baabu Ba kooku alaaji Maas Ba kooku jur may ñetteelu baay sama baay maanaam sama baay dafa tuddee Baay Ñas ñeenti doom taawam baay ko tuddee amaat keneen tuddee ko baay amaat keneen muy man mi moo amaat keneen tuddee ko baay muy ñeenti baay moo tax man maay baay Salisu comme ñun ñeent ñëpp nekkoon ci kër ga kenn ki nag yàlla def na la ko soob mu génn àdduna muy moom lañ daan wax baay ba. ñun ñeent ñëpp ci kër gi lañ nekkoon ñu daan ñu ràññeelee ku njëkk ki moom moom lañ daan wax bàyyi ñu naan bàyyi ba rek ci kër gi ñëpp xam nañ ñu ñaan yàlla dolli ko leer ak yërmande ki ci topp ñu ko daan wax Ibrahim mu ngi fii ñu ngi koy ñaanal yàlla daay man wax ba den man ma topp ci man ñu may wax Cheikh Ibrahim ki ci toppaat di sama rakk ñu koy wax Cheikh Baye <laughs> noonu lañu daan ràññeelee loolu daal mooy mbir mi. Eh, alaaj baabu ba doon muqaddamu Baye Niass 1957 sëriñ bi Cheikh Ibrahim ci boppam moo ñëw nguddi ba sampal ko boppam ci takkusaanu alxames ci 1957 ci teewaayu mbooloo mu takku comme ni ko taarix nettalee moom alaaji baabu moomu nekk na ci xilaafa ak Baye naka dund ak sëriñ bi ba 1975 sëriñ bi làqu ci Zahir ay xulafaam mooy Sidaali Cissé naka noonu Cheikh El Hadj Abdoulaye Seydi Ahmad Dam ba ci xilaafatu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ci la sama baay El Hadj Babou Ba noppalu ci le 6 novembre 2015 yàlla defal na ko mu dund ci xilaafa gi at yu bari. juróom benn fukki at yu manqué waaye moom moomu baayam alxaaji Maas Ba xalifa bàyyi la woon am bàyyi ko sampaloon boppam ci ngudi ba waxoon ko lijaasa ñaari at nag la def ci xilaafam ndax cinquante cinq ba cinquante sept la génn àdduna moom moom it mu donnu wax sax xilaafa duñ ko donnu ci waxini wolof dañ koy doon nijaayam alxaaji Saloum Diané moom it bàyyee ko sampaloon boppam bi faydu bi takkee bees rek 1929 mu nekk di xalifa Baye Niass ba ba ba 1955 moom alxaaji Saloum Diané mooy xalifa Baye bi mu nopploo 55 Baye moo ñëwul boppam jullee ko ñaanal ko dénk alaaji Mas ñii ñooy. sama calal la ci faydu bi ak ci tarixa bi euh, waaye it sama côté woy juru jigéen Sayda Fatima Ndaw euh, baayam moom lañ doon wax Elimaan Ñoxuba Ndaw Elimaan Ñoxuba it ab ab bëllëb la woon ci Ndukmaan waaye yàlla dogaloon yàlla xiroon ko ci sëriñ bi Cheikh Xaaji Ibrahim Ñas radiyallahu anhu ba bi bàyyi di woy woyam yu siiw yooyu ci ngodi ba nga xam ne ñun mënuñoo wax benn waxte boole wuñ ko ci bokk na ci ñi bàyyi tuddoon am na raisu qasrihim huwa al imaanu lana ata min nahwihi l ihsaanu ba ma jaaree nguddi ba fekk naa fa samay soppe ci ñaari bayti yi weesu waaye fekk naa fa seen borom dëkk raisu qasrihim seen borom dëkk ba huwa al imaanu mooy ilimaan ñu xubu ndaw kooku moo jur sama ndey lana ata min naxweel ixsaano man bu noon ci ma joxe xam-xam ak tënk boo ma laajee fan nga cosaanoo dama naan la sama cosaan mooy jaawastu Kaffrine boo jiitu Ngodiba jaar naa Kaffrine ñëw Ngodiba Ngodiba googu laa dëkk daaral muhibbiina Ngodiba mooy fan mooy ñan daaral muhibbiina kër ak soppeey bàyyi alkiraam ñu am teraanga al udaba ñu am yar dëkk boobu laa dëkk ñan ñooy samay baay bàyyi ñës mooy continuer di wax ne yaquuduhum ilal jinaani saalum alaaji saalum jaane bàyyi mooy wax ba léegi ne wa fihi muaazu wa huwa xirqun aalimun mooy alaaji maas ba moo jur alaaji ba mu ne raisu qasrihim huwa lana ata min nahwi al ihsaanu seen borom dëkk ba mooy ilimaan ñuxu ba ndaw defal na ma teraanga ilimaan ñuxu ba moo jur sama ndey fan kon ñooñ ñooy samay baay foofu mooy sama dëkk euh, alhamdulilah xam naa ne loolu moom dama koy tënk ndax loolu mën naa cee wax ndax maa ngi ci bind benn téere boo xam ne yaakaar naa ne léegi tey mu juddu maa ko tuddee sax taarixul faydati fii Ndoukoumane ndax tey ñi wax euh, am na ci ñu xam li ñuy wax am na ci ñu xam ne la wax des na leer te taarix ñun dañoo am devoir sàmm ba les génération montant mooy al ajyaalul qaadima bu ñëwee ñu fekk mbir mi ni mu dooneew ni mu demee euh, ci tënk dinaa la wax demal ci jawaahiru rasail ci ar risala al xaamisa minal wasaaya lettre numéro cinq ci wasaaya yekk naa taalib ba yëpp ne mu jawaay rasaayil xam nañu ko di nga fa fekk benn lettre xam ne Cheikh Ibrahim Niass moo ko bind alxaaji Saloum Diané ak alxaaji Moaz Ba boo demee ca fin lettre ba danga gis ne bàyyi mu ngi ko taarixal ci ne mille trois cent ci gàddaay gi bi koosi loolu la bàyyi bind bi taarix alfin wa thalathi miatin wa xamsina hijriya bi koosi mille neuf cent mille trois cent cinquante ci gàddaay gi boo ko génnee ci mille quatre cent quarante ci nga xam ne ci lay nekk ren day nekk ni lettre boobu am na quatre vingt douze ans quatre vingt douze ans boo ko génne woon léegi ci deux mille vingt et un day nekk ne lettre boobu kon bàyyi ko bind ci fin mille neuf cent vingt neuf wala début mille neuf kon ma ne la alaaji Saalum ak alaaji Maas te li ma lay wax lu nit mën a dut baaraam la dama ne dama ci risaala al xaamisa lettre numéro cinq ci wasaayaay ci jawaahiru rasaayil lettre bi bàyyi bind alaaji Saalum ak te mu cay wax ak ñoom ci xam yàlla ci ay dénkaane mu xaddam ni mu war a comporté woo kon boobu mooy début. alfayda juddug fayda gi ci zahir fayda bi moom ni fi yàlla yàggee la fi yàggee fayda bi ma ne ni yàlla yàggee fii noonu la fi fayda bi yàggee waaye judduum ci zahir biñ koy tuddee 1929 kon man la la alaaj Saalum ak alaaj Maas ci njëkk nangu naan joxe seen bopp ci lañ bokk li may wax nii kat yaakaar naa lu du du du ne rek dama bokk ci ñoom waaye dama joxe référence bu leer mille cent cinquante ak léegi mooy juróom-ñaar fukki at ñaar juróom fukki at ak ñaar wala ñett day nekk kon vingt neuf kon ñooñu teel nañoo ñëw wuy te maa ngi amee beneen lettre bu xam ne lettre bi leen bàyyi sóobee fam leen waxee ne waxat jaddatu lakkuma wér dakuma wal yaltazim kullun minkuma bi xamsi miatin min salaati alfaatixi wa allahuma alayka muawali maa ngi ko amee ci mbindam sëriñ bi ci ay loxoom bu taxutoo nag yeneen yu nekk ca lettre ba danaa ko def na fàng ñëpp ñëpp gis ko waaye li may wax lu ma ñeme la ku ci bëgg lu leer ne ma la nga doon wax keroog anamu boo ñëwee nga di ba ma teg ko ci sa loxo ñoom nag dañoo nekkoon ci roon maam Alxaaji Abdoulaye ñoom ci ay fan yu ñuy compté man sax loolu dama koy far di ragal di wax ñoo ëppale woon ñoo magoon sëriñ bi ci zaahir ñoo magoon bàyyi waaye comme dañuy jàngale rek ci ay yu ñuy compté ñoo ko magoon ndax maa laa jëb lay leen yar jàngal leen muy maam laaj Saalum muy alaaj maam alaaj Maas moo leen jox wér de tijaaniya moo leen lijaasaal ñoom ñëpp lijaasa maam alxaaji Saalum ci maam alxaaji Abdullahi maa ngi ko yore ku ñëw ma wan la ko sama lijaasa maam alaaji Maas Ba bi comme maam alxaaji Abdoulahi Niass bindal ci loxo doomam bàyyi Mouhamed Zeynab alxaaji Mouhamed Zeynab maa ngi ko yore ku ñëw ma wan la ko donc ñoom maam alaaji Abdoulahi moo leen yore woon ci kuusi jàngal leen yar leen ci tarixa bi lijaasa leen jox leen ndigal ñu dem liggéey yi waaye comme fa nekkoon mag nettalil na ma ne daan nañ wax Maam El Hadj Abdoulaye ne ko sa doom jii dee di Ibra ñaanal ñu yàlla bu ëllëgee bu ñu kenn ëpp cër ci li nga xam ne yàlla dana ko feeñal ci loxoom loolu tax na nag ñoom bi faydu bi di ñox ñoxi noonu laa koy waxee ñu naan faydu beeg lii ak lële Maam El Hadj Mass sama maam moo jël lettre kayit bind lettre sëriñ bi boole ci addiya bi lettre bi yegsee rek bàyyi liir ko dafa tourné lettre ba ci la wax lii ma wax la sànq ne beesalal naa leen seen wér de tijaaniya li ñuy wax tey keroog la leen bàyyi sóob loolu moom day nekk vingt neuf wala trente li tax ma ne vingt neuf wala trente la parce que boobu gisuma ci taarix mais seeni lijaasa yi leen bàyyi bindal ñoom ñaar maam Alxaaji Muas ba te bàyyi ko bind ci loxoom dama gis 1931. Euh, kon ma xam ne ñoom soit le vingt neuf la ñu la ñu tarbi wala la euh, année vingt la ñu tarbi wala année trente te li jàpp sax li tax ma jàpp ne mille neuf cent vingt neuf la mooy lettre bi ma wax la léegi jawaahiru rasaayil muy lettre numéro cinq te boobu moom sëriñ bi yaxal na ko mille trois cent cinquante mille trois cent cinquante boobu ci boo ko nattale dama ne la mille neuf cent vingt kon ñoom njëkk tarbi yu ci lañ bokk boobu nag nekkuñ guddi ba ñu ngi Saalum Jaane moo tax leetar bi boo ko liiree bàyyi danaan ila asfiyaina wa ahbabina wa ixwanina euh, ahli Fass Fass la bàyyi tudd parce que maam Saalum Diané dafa sancoon dëkk fii ci département bu euh, Foundiougne région de Fatick dëkk bu ñuy wax Saalum Diané ci ñombaatoon noonu la tudd ba léegi mais moom ba ko sancee sax Fass la ko tuddee woon bi ñuy tarbiw de xam yàlla boobu nekkuñ ngodi ba ñëw ci dëkk booba Euh, fala leen bàyyi soobee fala leen bàyyi njëkk a visité ji dëkk boobu ñu ngi ko soñ ci 1915 man sama wajur Cheikh El Hadj Babou Ba juddoo Ngodi Ba Saalum Diané la juddoo lu waral loolu nag ñoom dañu gàddaayoon dem jàngi maam Saalum demoon ci maam Makhtar Touré muy wajuru maam Cheikh Omar Touré mi ñëpp xam maam El Hadj moom gàddaay dem Koosi biñ jàngee ba pare comme maam Makhtar moo sañcoon Njaay Njaay gi mu wax maam Saalum Ndiaye ne ko dama lay sañcal fii sama dëkk sama wetu dëkk ñu sañc fa ñu toog fa sama baay ak magi ngodi ba yëpp fa la ñu juddoo ñoom bàyyi Niass moo leen jox ndigal nañu delluwaat seen cosaan te muy ngodi ba kon loolu jar na ma leeral ko ñu teela naan lañ ci faydu bi dama ko waxee vingt neuf wala trente Cheikh Ibrahim li jaasaal na leen ñoom ñaari kenn ku nekk ci loxoom yàlla dimbale na leen kenn ku nekk ci ñoom ñaar ñooñu làq na li jaasa maam Alxaaji Abdoulaye pour honnêteté intellectuelle may wax na it ku ne làq na lijaa lijaasa maam xalifa ñas ndax 1922 bi maam El Hadj Abdoulaye génnee àdduna maam xalifa ni ko bàyyi Niass ci boppam daan waxee mooy xalifa maam El Hadj Abdoulaye ci niñ ko xamee nii dañu demaat ci moom mu beesalaatal leen loolu maa ngi ko yore waaye comme nag am na lu ñu bàyyi xel muy faydu bi bij bi mu ni nii rek dañoo daw ñëw foofu nag dina baax ma leeral ne. bi leen bàyyi soobee leetar bi ñëw ñu gis ñu ah lii kat maam ñu ne keroog bés ba ci guddi gi dafa taw sama bàyyi ma ko nettali la laaj Saloum comme moo doon kilifa ga doon borom kër gaag lépp maam laaj Maas daf ne man moom damay war mbaam mi suba dem koo si ma fi xaar naan damay ji wala lii ak lii dalee bët sebbi na ni ko Saloum Saloum ni ko euh, wala fi xamee war mbaam mi ñëw koo ci Baye Niass radiallahu anhu moom sama maam Alaaji Maas Ba sama baay mooma nettali ne ma sa maam tarbiyu na juróom-benni weer ci koo si mënta am fatu foofu nag danay faral di wax ne waaw ku xam ne Alxaaji Ablaye Niass moo la jàngal alquran ba nga goreel ko jàngal la xam-xam ba nga goreel ko jox la tariqa tijaaniya lijaasal la te lijaas maam Alaaji Ablaye kat yombut yombut de bariwut ñu ko mën a wane nga ñëwaat ci doomam kuñ ne doomam la te ñu baal ma sax te yaa ko mag ci ci mu téye la coroon guy ga ca koosu juróom benn weer mënoo xam yàlla là y grand question am na équation bu ñu war a régler foofu mais loolu tax ñoo jóg ba bés ci la bàyyi jël kayit bind bayt yi ma lay wax si wax naa ko ci émission yu bari ne ko tadabbaril azkara ya muaadu wa rabbuna almuhayminu almalaadu wal taqtaci nadara an siwaahu xatta ida lam yabqa illa allahu fa innama lada al tarkuka ma siwaahu bil iqaani na ko yow alaaj moas ba bayt yi dama koy firi rek ci nuñ koy mën a déggee simplifier ko yi ngay jega setantal ko kat moo noot lépp mooy leen jàkkaarleel rek wal tax taxi nasara bul nangoo gis lu dul yàlla rek fatuf moom munoo koo am lu dul ci jëmm yi nga xam ne ñoom nga jàkkaarleet noonu rek lay waxee baytu baytu yooyu nag ñu bari sax askanee nañ ko maas masamba maas diw maas x waaye li wér ba booba demagul màkka moo doon tarbiwu ci kër Baye ñas ci kuus yi def juróom benn weer mënta xam yàlla Baye bind ko bayti yooyu ca la ko jazboo dégg naa bés Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop di firi fii ci këram donc sey ci bayti yi ne bayti yi nag ñu bari ñu ngi wax naan maas male la wala male la waaye bayti yi Baye mu ngi ko bindoon ku daan wax Baye maas ba ca ngodi ba di way joro sëriñ Baabu Ba dégg naa Oustaz waaye li ma bëgg wax daal mooy ci bayti yooyu la Baye jazboo Maam Alxaaji Muaz ni ma ko waxee nag ci njëlbeen gi ñu nekk Saalum Diané euh, ba 1942 Cheikh Ibrahim Niass leen lettre te maa ngi ko yore ne leen man ngeen dellu ngodi ba wax sax na leen waqad faaltu lakuma al istixaarata waqad ixtaara maa huwa xayrun lakuma bàyyi na leen def naa xaar bi li may wax ni dama bëgg rek ñépp xam ne ku ñëw ne ma ana mu ma ne la mu ngi nii duma ci dolli duma ci wàññi mu ne leen bu ngeen demee ba yegg def leen nangam ak nangam ak nangam mu ne leen bu miiqaatu nabiyillahi Muusa ñëwa ñëwee na ngeen baamuwaat xalwa ja xalwaay ñeent fukki fan war naa ko ñu bari war naa ko sama sëriñ sama soppe sama xarit Ahmed ibnu Cheikh Ahmed Tidiane bàyyi santoon na leen xaloo ñeen fukki fan ñu pare parewaat mu ne leen waat leen ko maa ngi amee le texte original bàyyi bindu looru kenn moo ko bind ci loxoom noonu lañ delloo ngodi ba nag maa walaaj Sall nekk fa bàyyi di ko fa fekk ba 1955 ci laa la wax ci la noppaloo wax naa ko ci njëlbeen gi maam Alaaji Saalum Diané doon xalifa bàyyi mutlaqan wàcc liggéey bàyyi moo taal otoom ñëwal boppam defaral ko boppam jullee ko dénk ne ana maas ba mu ne mu ngi nii doon jarbaatu alaaji Saalum Diané mu samp ko ci kanam nit ñi bindalaatal ko lijaasa te wax naa la ne la bul fàtte ne ñoom bañ tarbiyoo rek bàyyi def leen bindal lijaasa bul fàtte loolu sampaatu ko ci kanam nit ñi moom mala maam alaaji maas ba moom nag ñaari at la ci def 55 56 57 mu noppalu sëriñ bi moo ñëwalaat boppam Baye Niass radiyallahu anhu ba mu ñëwee nag doomam juñ doon wax Ba Faat Diop muy alaaj baabu baax boobu demul Màkka 63 la dem Màkk 55 alaaj baabu et 57 30 ans la amoon bu tegee benn at la tegoon moom alaaj baabu baax boobu Ba Faat Diop lañ koy wax. ndukkumaan yëpp àdduna yëpp daje ndax Baye kat 1957 fu muy dem ñëpp danañ dem ñi bëgg ak ñi bëggul ndax taar ba ak tabe ga ak coow li sax lay wax Ibra am Ibra Ibra ji boobu fu muy dem moom ñëpp seetaan yi ñëpp danañ toog ne kii mooy Ibra Ibra ngi nii nee nañ ñëpp toog xolofaawu maam Alaaji Saalum yi toog xolofaawu maam Alaaji si toog ndukkumaan yëpp toog Sénégal yëpp toog lay wax noonu la ma ko mag ñi nettali ci takkusaan alxames jooja bàyyi ñëw waaraate dénkaane ne ana Bafat Diop doomam Bafat Diop ñu ne mu ngi nii sama bàyyi mu ne keroog maa ngi watu nel sel jëmput ak caaya mu ne bi ma jógee dama doon lox ne mu ñëw toog ci kanam bàyyi bàyyi kaala ko digal ko mbooloo mi muy nii kuy jox ku may jox jox ko ku may laaj laaj ko mu ngi nii yàlla dogal moom Cheikh Alaaji Baaba nag cinquante sept ma la fanweeri at ak benn wala fanweeri at ak ñaar maximum yàlla may ko nag mu nekk ca ba 1963 ci muqaddami baay yi nga xam ne sax baay moo leen tànnaloon boppam ne leen kaay leen ñu ànd Màkka dem aj yi ca la bokkoon sama baay nettali na ma ne moom ak ñam àndaloon baay Gàmbi la leen jaareel fa leen jëlee woon vol ñu fekk baay Accra parce que Kwame Nkrumah foog naa joxoon na sëriñ bi ne nettali na ma ci ñu bari sëriñ Baay ci la bokkoon Thierno Assane dem tawam Alhaji Abdoulaye ñoom ñëpp ñu dajee Gana Accra sama baay may nettali ne ma aj googu mu ne boobu maa ngi am kattan doom mu ne étage boobu màkka étage yi escalier yi traditionnel yi moo fa am mu ne boobu maa ngi am kattan am taxaw am doole bëgg sëriñ bi jeex ci sëriñ bi mu ne bi ñëwee ba si màkka mu ne bagage yu bëri keroog lu ma wax ne yëpp maa ko dugal waaye yu ci bëri maa ko doon yenu di daw di yéeg dugal mu ne yàlla may na ma ma ànd ak sëriñ bi ñu aji màkka te moom ma woowoon ne nañ dem xilaafa goor na Cheikh nekk na ci ba ba ci la ci liggéey mu def ci juróom benn fukki at yaakaar naa cinquante sept ans wala cinquante neuf ans euh, mu def ko ci xilaafa euh, Baye Niass gi nga xam ne junj naa ko ci euh, njëlbeen gi mu yàlla defal ko ci doon tawféex mu def ci ay réalisation yu bëri waaye réalisation yi li ci ëpp dama koy faral di tënk ku ma tënkal ma réalisation yi sa Baye El Hadj Babou Ba dama naan la rek ku sàmm woon la ci faydu bi ku sàmmoon nit liñ ko dénk la ba dafa jàppoon rek ci cosaan li nangu rek yu bari daf ko doon daw ndax kat xam nga ku xam ne bàyyi dafa ñëw 1946 nan ne sa baay yii kat ñu am cofeel lañ mahabbatu ñu am teraanga lañ ñu am yar lañ yow amul la droit ci yenn yi moo tax nga ba dal calme yu bari li leer ci faydu bi rek te faydu bi sax lépp leer ci lañ doon jàpp li nga xam ne lépp nangu nañ ne bokkut ci ñu tegoon ko fële moom noonu la doon dundee dama naan réalisation yi man loolu ma ci ëppal solo mooy sàmm sàmm woon dénkaane bi kon euh, mën naa ci wax lu bari waaye loolu rek foofu laa ci yem <laughs> waa xam naa ne damay wax li Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop waxoon rek Ousmane toog ci bang ñu jël crayon la kii bind ci tableau man nag maa ngi wax ci français waaye nag man toog naa ci bag nit bind ci kere bu bëgg a dee damaa jàng damaa xamul rek waaye jàng naa bu bëgg dee bala maa ñëw ci laa la wax ne mu ko diba gii laa jàngee alxuraan sëriñ Daara Ousmane Niang ñëpp xam ko tey ci Medina bàyyi moo ma jàngal alxuraan waaye ci sama kër Baye ndax def na ci sama kër Baye fukki at ak juróom-benn wala fukk juróom-ñaar sëriñ Daara Ousmane Niang mi nga xam ne Baye mooy Ahmadou Cheikhou Niang Amadou Cheikhou Niang bàyyi daf daan jël ay doomam fii Medina yóbbu leen Misra Waalo mën naa cee tudd doomu Cheikh Ibrahim l'ancien maire Cheikh Mouhamadul Khalifa Pape Sidi Arabi Niass mu bàyyi laaj Mouhamad Zeynab ñooñu ñëpp kon ki ma jàngal kooku mooy baayam muy njaboot maam Ahmad euh, Boucar njabootu maam Abdou Niang moo ma jàngal alxuraan ci nguddi ba sama kër bàyyi moo ma dalal xam-xam waaye ma continuer dem jàng sama jarbaatu baay bu ñuy wax Alaaji Saloum moom it wilaan ca daaray Mam Cheikh Oumar Touré dafa juróom-ñaari at fa la jàngee nañ koy tuddee téere yu xonq yi ma jógee fa am bourse nag dem Soudan ci benn université bu ñuy wax Jaamiatu Ifriqiya al Alamiya université internationale d'Afrique ci Khartoum Soudan ma dafa 97 ba 2002 fa laa defee sama licence wala maîtrise masters ci charia al islamia kulliyatu charia wal qanun faculté de la charia de droit noonu lañ ko tuddee woon parce que nag noonu jàng charia en même temps it euh, bu doon ci anglais dañoo comparative law euh, dëgg la nag ci biir njàng moomu daan nañ am benn wala ñaar lecture ñu ko doon waxee lecture mooy mm, dërsu rek ci benn semaine bi langue étrangère waaye yàlla dafa defoon sax ma bëri woon affaire sax man biñ may tànnaloo langue étrangère tànnuma français malgré que ci pays francophone la rek ma tànn anglais français bi nag doon naa ci def samay samay samay gëstu euh, mos bés sax jot na sax ma inscrire woon ci centre culturel français bi nekk euh, Khartoum ak samay gëstu yu bëri rek topp dictionnaire yi daan déglu fii lu bëri abonné woon Jeune Afrique euh, François Soudan fa laa ko woon daan na tax sax man dama doon daw jàng lu bëree bëri ndax liir Jeune Afrique RFI xaw ma ci woon dara dama ko daan déglu guddi yi su ma xëyee war a jàng ci école ba duma dem jàngi damay tëdd nelaw français li ma ci am as tuut noonu laa ko faraatoon anglais bi euh, kazalik euh, damay delluwaat rek ci lettre bi ma la tudd loon léegi 1350 ba ko bàyyi de bindeek léegi li ma la wax naa la téeméeri at di tuutee ci manqué bindoon ko samay baay am naa yaakaar samay baay góor-góorlu woon nañ su ma ne samay baay mooy samay maam te lettre boobu dama gis ne dañuy wax ne lan taslux haadihi l ummatu illa bima saluha bihi awaluha borom xam-xam dañuy wax ne xeet wu mujj wii buñ ko mënee wax li koy defar mooy la defaroon njëlbeen ga maanaam la defaroon mag ñi mooy defar ndaw ñi man kom lettre bii la bàyyi bindoon ñooñu am naa yaakaar ca lañ defaroo buñ ko detaayee kon ba léegi ma jàpp ne moo moo ñuy defar dénkaane ba ci jiitu bàyyi dafa la noonu uusiku wa uusi nafsi bi taqwallaahi bàyyi ne alaaj saalum alaaj maas ak ñi ngeen àndal maa ngi leen di dénk ragal yàlla barxam xam nga lu tax ma tànn loolu bàyyi def caa teg lu yéeme ne fa huwa sirrul asraari bàyyi mu ne mbooti mbóot yi li may wax dellu ci lettre bi ma la waxoon léegi mbooti mbóot yi mu ne mooy ragal yàlla waaye yemul fa nag bàyyi na leen lan mooy ragal yàlla rek ma ko waxee mu ne imtithaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi def digle yi bàyyi tere yi tout court boo mooy premier dénkaane bi kon mbooti mboot yi du ci tur yu guddi yi nga xam ne boo ko tegee ci suuf mu mat mètre du ci ne ma dàqal li saxaar ci Sénégal léegi may gis fan rek maa ngi gis yu yi mel noonu ku ñëw ci man sama li léeg-léeg bàyyi na la déedéet yow mii askanoo ci man mbooti mbooti mun mën nga ragal yàlla ragal yàlla mooy jafe ndigal yi bàyyi tere yi donc yu bëri tey yu ñuy woote bàyyi jàngal nañu yombalal nañu mbir yi yombalal nañu mbir yi kii kii kii borom booy seet barxam booy seet ku yore mbir yi rek bàyyi mu ne seetal ki ragal yàlla rek waaye damay wax sax ne daal yu bari tey sax daanaka donte ka la tax ñoo jóg waaye mu teg ca nag ne wa aakadul mamuraati assalawaatul xams bàyyi mu ne li gën a fade ci li yàlla digle mu ne mooy julli juróom bi shurutiha fil jamaati sax la ko shurutiha donc dénkaane ñaareel baa ngi noonu bàyyi di wéy ba ne wal ijtimaau alal wasifati wala lil wasifati baay mu ne maa ngi leen di denk it ngeen fonk wasifa ci mbooloo euh, beneen ba mooy wa taamiru awqaatikum bi salaatil fatixi bàyyi mu ne maa ngi leen di dénk tamit seen waxtu yi ngeen fees ngeen remplir ko ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi salaatil fatixi li ma uxlaq ndenkaane ñeenteel baa ngi noonu ndenkaane juróomeel bi bàyyi mu ne maa ngi leen di dénk tamit ngeen topp seeni muqaddam waaye def ko conditionné et ça c'est important mahma amarukum bi maarufin feek ñu ngi leen di digal li yàlla digle fàttali sax laay wax foofu di leen tere it li yàlla tere donc bàyyi digal na la ndax nit day am kilifa aaya bi sax wa atiyo yaa lislam atiyo la wa atiyo rasula wa ulil amri minkum indi na ko ci lettre bi nit mënta ñàkk kilifa waaye nee na kilifa dem ay digleem ak ay tereem dafa am condition mooy fekk ma koy waxee e, li wax dafa am conformité ak li yàlla santaane ak yonent bi sallallahu alayhi e, donc e, ñett dama jàpp ne boo ragalee yàlla loolu sax mooy moo mooy moom moo ëmb ñeent yi ci topp ku ragal yàlla danga julli ji bàyyi nee na ne julli ji nañuy julli ji ci mbooloo bàyyi nee nañ nañuy fonk wasifa bu ne la wasifa yóbbaale na wér rek xadratul juma baay nee na na ngeen di dundal seeni waxtu ci topp yàlla rawat na ci julli salaatul fatih na ci ci julli ci yonent bi ci salaatul fatih li maa walaq ak topp seeni muqaddam waaye nag am na beneen bu ci topp beneen bu ci am solo it mooy muñ muñ mooy buñ ko waxee mooy bañ a yàkkamti ba ca beneen ba mooy it bañ a yàkkamti maqaama wala daraja wala feeñ ñett yii ku leen woote te wérul ci yow yàlla xañ na la ko ku woote maqaama wala daraja wala lu nekkul fi yow yow loola du ma wax sax yàlla xañ na la ko xañ nga ko sa bopp dootoo ko am Oustaz Braham Diop ci lay tëjee nit laaj na ko ko loolu comme am na ci baatin te lu am ci baatin war naa am ci zaahir noo ñu koy wanee ci zaahir mu ne waaw ku fi xëyoon ne man bu nit ñi toogee rek nga naan sama million yee ca banque ba sama milliard yee ca banque ba te yoroo ñetti dërëm ndax yow nit dana la may fukki dërëm wala juróomi dërëm ndax nit dana la may junne boo toogee naan sama million yi sama kër ga ca fële sama bien yi sama lii te yoroo dara mu ne mu ne yow xañ nga ñi la ñi la bëggoon a may kañ fu mu ne xam nga ne ki ki yoroon téeméer bëgg la ko jox da da da koy daal di téye mu ne woote ma xaama nag mu ne noonu la bëgg feeñ te te noonu kasaalik woote daal lu xam ne eh, àgg goo ca wala nekkul yow eh, xañ nga ko sa bopp bu ko defee digle yii nii nga xam ne bàyyi mu ko doon digal ñu xam ne ay màgget lañu ay taalibe tijaan la ñu woon ci maam Alaaji Abdoulaye doon ay taalibee moom ñu wér mu yaral leen boppam nangul leen ñoom la bindoon lettre bi ci 1350 hijriya moo demee ci lettre numéro 5 ci al minal wasaaya ci jawaahiru rasaaya di nga fa fekk lettre bii nii ma lay wax. Ah, man damay man damay man damay faral di wax ne bàyyi kaana musliman ab jullit la woon. sunni yu la woon ku tënku woon ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa jaral ko lu ne alxuraan moo njëkk wax ne wattabi sabila man anaaba ilayya ki dellu ci yàlla nangul yàlla te nga gis ko ci zaahir ci shariatum xam nga ñu bari tey ñu may gis surtout ñun génération bi nii dina la waxal ci bàyyi rek danga naan baatin wala xaqiqa te su boobaa bloqué nga ñu bari te dama jàpp ne sax yàlla moom ne huwal awwalu wal axiru wa zahiru lañ ñu ko teg ci baatin man sax ba léegi je me ba léegi baatin sax c'est quoi baatin sax ba léegi nii dama ne xaqiqa sharia moo ko dama ne bàyyi ki bëgg ñëw ci bàyyi la war a njëkk xëcc jëmale ci Baye mooy nit chariatu la woon de manière extraordinaire sonn ci charia yàlla bi jàng ak jàngale ak jëfe ak sàmm ko ba mu daj ci lu ne bunduxatal bu nekk daj na ko ci tabax ay jàkka tabax ay maaxaat nit ñi di jàngi dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa aj màkka fukki yoon ak juróom-ñaar ziara ji yonent bi lu ëpp loolu dajeek àdduna bi jullit ñi woo leen ci yàlla arab yi tubaab yi ba Chine ca Chonlayen ca jamono yooya ba Karachi ba bi daari ulumi diini ca Karachi ca jamono yooyu dans les années soixante Baye dafa jàppoon ne kenn la ci jullit ñi moo tax bi mu jógee fii Sénégal dem Karachi ci année soixante yi boobu dem fa yombul waaye ba mu demee woon daf ne karachi biha laftu ahla mawaddati hum nasaru diina nabiyi fiala kon bàyyi ma ne balaa may ñëw ci sax naa boroom faydu gi dama naan la non jullit la woon bu xam ne sonoon ci lislaam nit ñi booloo nekk benn muy jël xaalisam amutoon budget bu jógee ci état wala taalibe yu doon dajale wala nangam di def ci poosam moom kenn di téye saagam wax naa dem Karachi dem Daaru mu Diin dem partout fu mu dem dajeeg jullit ña wax leen waar leen génnee lam am jox leen def ko fu ne Rabat def ko sos cause palestinienne bi nii caisse la solidarité xaw ma pour le peuple palestinien yi demee noonu mën naa la wax ne su ma bañee exagérer ma ne c'est membre fondateur mana ñaax ci nit ñi ba tey ji ñëpp naan Palestine Palestine Palestine te boobu weetoon na ci la alamil islaam yi bàyyi moo njëkk a proposé ne comme nit ñaa ngi aj ci Makka ci 1937 te ñooy fayal seen bopp kon jullit ñi war nañoo profito ci aj gi comme duñ fay duñ joxe hôtel ak bu waaye buñ ñëwee aj ci nañuy dajee di waxtaan mbiri jullit ñi mu proposé buuru Arabie Saoudite ba bés mu invité leen euh, waa Égypte ak Baye ak lii Baye jël parole ba ca loola xalaat yu mel noonu ci la rabitatul alamil islam ji ligue mondiale gii nga xam ne tey moom àdduna bi yëpp te mu ciy membre fondateur Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop daan na wax ne jàmbu xeebu bii kat boo demee ci liste des membre fondateur numéro 2 yaa ngi fay fekk Ibrahima Mahmoud Diop teewaloon fa sëriñam taali wasilaam baayam léppam Cheikh Ibrahim ñas donc aspect boobu dafa am solo ci Baye Niass ñu koy présenter le monde musulman waaye sax euh, ñu ne sunniyu sunni sunnaam ci euh, fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundal gi mu dundal sunna yonent bi alayhi salaatu wa daj ci lu ne dama ci wax benn rek te parce que parce que ci yi ci gënoon jafee la bokkoon mooy keroog bi mu jàngee xadiis yonent bi sallallahu alayhi mu wér ci moom ñu ne jamono tisbaar takkusaan mu ñëw ci jàkka ji ne allahu akbar xabdu yëkkati ay ñaari loxoom ñu ne xibra ban bana bana Cheikhu Tidiane bana baayam alaaji Abdoulaye ndax ñoom dañ daan julli di yor mu ne déedéet yonent bi moom li wér ci moom te mu wér moom moo ci sama sëriñ dégluwuma ci leneen Cheikhu Tidiane sama sëriñ la ci tarixa bi sama baay moo ma jàngal moo ma jox tarixa waaye li wér lépp lu wér ci yonent bi rek ba keroog ba ma fi bàyyi ko euh, loolu loolu loolu ci lay jàpp Euh, loolu mu daj ci euh, dajee ceeg ay kàngaam jël doomam yëpp tuddee leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bind ci yonent bi ku mosal laal yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi nettali ci ci ci gàmmu gi paase rek bi problème mu Macron boobu euh, xam nu mu tudd sax ki journal boobu nekk France Charlie Hebdo. biñ ma laajee ma ne man de maa ngi fàttaliku bi ñuy ubbee euh, mooy ca Sina wala ca Sinaay ci jamono Jamal Abdou Nasser bokkoon ci raar jullit ñi et le seul amoon invitation te ko chef d'état ci ca Sinaay ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy inauguré may leen bàyyi ba mu taxawee chef d'état yëpp taxaw Jamal Abdin Naas mu raglu lool moom bu taxaw rek dafa taxaw ne uxayi rasulallahi sallallahu alayhi wa maa ngi leen di fàttali yonent bi maa ngi nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ jàpp sunna yonent bi ay chef d'état la doon waxal c'était le seul noir kenn ku xam ne le seul non chef d'état ku xamante ne ni yaa ngi fa woon waaye ba mu taxawee dama ne mañax mañax yi jëlut ko chef d'état yi eh, kiiwuñu ko garde corps rapproché yi moom daf ne maa ngi ànd ak yonent bi fu mu jëm moom la àndal maa ngi leen di fàttali yonent bi waxay ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam pourtant bëri nañu xamante ne nii tey te man mii sax ci laa bokk bu la président sa réew joxoon joxoon audience rek waxtu julli rek nga nga nga wuy ji ko kii nag dem ba ci jotaay boobu nekkat ma bëgg-bëgg yëpp kat mooy àdduna yëpp fii nga xam ne média bi yëpp a ngi jël nañ dellu ci yonent bi salaatu salaam alayhi salaatu wasalaam kon bàyyi ma ne ak njuliteem buñ koy jàngat di ko tas surtout ñun ñi nga xam ne ñooy askanoo ci moom war nañ concentré ci aspect boobu war nañ concentré ci sunniyatoom ni mu jàppee woon yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu sonnee woon ci sunnaam yooya ñoo indi parce que sharia bu wér mooy jur mooy ndey ak bàyyi xaqiqa loolu moo loolu moo tax euh, euh, loolu moo indi xaqiqa bi moo indi li ñuy tuddee alfayda tijaniya Euh, te sax nag euh, benn la ndax fayda tijaaniya ni ko waxee rek biir ci biir tijaaniya la tijaanitu la nekk tijaaniyatu ci biir lislaam la nekk euh, li may wax mooy Baye dafa am aspect yoo xam ne ba léegi dañ ko war a exploité te des na toujours damay wax ne l'aspect diplomatique la dimension diplomatique de Cheikh al xaaj Hadj ñas des na parce que ku xam ne ñi nga bokk loon jamono ci ay chef d'état ci ay buur ñi ci ëpp ci jullit ñeeg ñàkk diwlin ñu toog nga ak ñoom congrès yu mag yi toog nga ci ak ñoom te daawul dem rek ci invitation nga dem toog nekk euh, observateur non da doon participer effectivement di bind li gën a yéeme nag di bind ay documents ay propositions donc aspect boobu war nañ cee war nañ koo xoolaat diplomatie populaire laa ko doon tudd te mu réglé woon ci nag problème Afrique yu bëri réglé woon ci problème adduna yu bëri rek la woon ci même problème bu Sénégal yu bari waaye aspect boobu lay wax ma ne bàyyi ak chariatu bàyyi ak chariatu boobu it dafa da exploitation bi ñu ndaw ñi niñ ci war di waxtaanee di ko di ko wax nit ñi des na sunni yetoom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léppam mu jox ko yonent bi xeex ndax sunnaam yu bëri yu mu fi fekkoon ñu naan léeg-léeg mu rey ko mu dindi ko soril ko indi Euh, euh, euh, sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam asbabu ba léegi ñu ndaw ñi ci ci génération bi nii war nañ cee gën a war nañ cee gën a gën a gën a gën a waxtaan dañuy concentré trop am na solo nag ci faydu bi xaqiqatu waaye bàyyi dafa am yeneen yeneen mbir yoo xamante ni daf caa sonn mën na mën na mën nañoo wax sax ci la gën a sonn yooyu benn bu ci nekk rek doy na boo ci waxtaanee parce que it euh, atra maanaam tax na ñu bëree bëree bëree bëri maanaam ba mu njëkk a dem Nigéria dëgg la euh, ak adduna bi am na ci jotaa yoo xamante ne ni xam nga ne keroog moom chariatu ci lañ doon ci lañ doon ci lañ doon wax xam nga kenn du fàtte congrès fa imama na baadu ima fidaan xata tada al xarbu awzara abu zahra ca keer keroog bañ taxawee adduna yëpp taxaw ulamaa yi borom xam-xam yi ci adduna bi yëpp taxaw fii ci keer nga xam ne kenn kekk la nen du fa bonde Abu Zahra ñëpp xam ko délégation syrienne ak dëkk arab yi daqoon a jàng bàyyi taxaw ñuul kukk ci seen biir ñu baal ma ci kàddu yi am luñ bëggoon a yaxal luñ bëggoon a saxal ngir ox le monde occident am na lu mu doon kii bàyyi taxaw ne leen déedéet demeewut noonu xam ngeen fa imaam manam baadu imaam ne ko yow daanu nga ndax aaya bi nga indi sax di dàq ne njaam amul ci lislaam yow moo la daane ndax njaam moom am na ci lislaam lislaam kañ dafa ñëw di ko di di ko di ko di ko xeex pour jëlee ko fii moo tax fa tahriru raqaba donc aspect sharia yooyu nga xam ne keroog bàyyi wéetoon na ci taxawaay booba Oustaz Barham Diop mu ne keroog kenn ci membre délégation syrienne ñëw na ci gannaaw na ko sëriñ bii de mu Cheikh Ibrahima Niass tey bu mbugal doon wàcc fii ñu taxaw moom rek mooy mucc akum yu baale kon bàyyi bàyyi ak sharia dama dama dama jar na jar na parce que euh, am na jotaay yoo xam ne jafe woon na lool mu taxaw bu ñëwee ci aqidal islamia ci la lay baxee xam nga aqida coow yu bëri na ba léegi nii ñi naan aqida ñi naan tawxid ñi naan iman diwa ngay bokkaale na am na ñoo xam ne seen adduna lépp tey loolu la téere bu nekk bind nañ ko ci mais bàyyi <laughs> ajam romb nekk koy jàngale ci digg kaaba gi donc di firi summa stawa alal arsh bàyyi di romb ci digg kaaba gi kuñ tegal gàngunaay ba léegi ma ngi fay am bàyyi dégg waa ji wax lu xamante ne nii ci aqidal islamiyya pour défendre l'islam ak iman ak pas-pas moo tax ñu fi toog di wax yéen ni may leen bàyyi xëy na da ngeen da sa xam wala xëy na ñenn ñi leen ñi leen di présenté bàyyi dafa am lu ñu leen di présenté am lu ñu leen présenté wul waaye maa ngi lay laaj barxaam africain sénégalais bu jógee fii mag Makka dem ci digg Kaaba gi naar bu xonq am am am am am am immunité euh, malaanam kirlaay ca buur ba <laughs> am xam-xam bañ nangul la ci Kaaba gi ngay jàngale nga firi nu xamante ne ni day dàqwanteeg pas-pas tawxiid bàyyi romb dégg mën a istawa alal arshi firee ko nu xamante ne ni yàllaa ngi toog ca gàngunaayam nga comme ni ma toogee sama gàngunaay gi man bàyyi ro dégg loolu arrière na ko salaamaaleykum a ak yar nag ànd ak teggiin na ko lu ma dégg nga wax mu ne ko waaw stawa alal arshi rahmanu mooy yàlla gàngu naayam nga arasham nga ma ngi ci toogee comme ni ma toogee ci sama ci sama toogu bi nii bàyyi na ko déedéet juum nga du noonu na ko yow sa toogu bii da cee toog ndax ñaari condition ndax dafa dafa yaatu nga xëcc dafa dëgër ba attan la mun ne ko te ñaari yooyu ak yeneen ñaari yëpp jomm na ci arahman mu ne ko loolu teraanga la ju yàlla jagleel arsh parce que sax waaje fu mu njëkk daanu sax lay sa kamis lay cheyun wa samain basir alquran mu ne wala wala wala moom fa mu njëkk daanoo sax te sëriñ bi leer na ko mooy ba melalee boppam rek ne yàlla comme ni man mii nii maanaa taxawaay yooyu dafa jar ñu di ko leeralal ndaw ñi ñu di ko leeralal ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi naan du nii ñu leeral leen ko waaye même ñun ñi ci biir tey jii nii ñu xam ne Baye taxawaayam ci ci défendre aqidal islamiya yaxal ko ragalutoon ci daara def na ci lu ne door a ñëw nag ci mbiru faydu beeg mbiru tarixa bi. ok dëkk bi Sénégal nga ci jublu dama naan rek euh, la ma waxoon la defaroon mag ñi démb mooy defar ndaw ñi tey mag ñi la leen defaloon te mu yitteeloon suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass dama naan wax naan ba ci ëpp mooy tekkiin al adab ndax 1921 boobu indépendance amagul dañ ñoo noot koom-koom bariwul moomuñ suñ bopp ci lu bari tubaab yee fi nekkoon seen culture seen aada lañ doon jëfandikoo sëriñ bi bi mu jógee yàlla jox ko ndigal. mu war a bind ci jamono jooja ak ba ilaa yawmil xiyaamati lim gis ne moo war a regle problème bi tey ak suba ak ginnaaw suba bis penc mu doon al adab moom la njëkk jël bind ne ruuxul adab yi dama naan roolu adab baax na li ci sëriñ bi wax lépp ñëpp ko war a xam mais pour pourquoi ca contexte boobu mu jël bigam rek ne ruuxul adab ne maa ngi taalif ci adab quoi contexte bu jafe boobu mënoon naa bind ci nu ñuy comment résister le le le colonialisme nangam nangam nangam mais pourquoi contexte yu jafe yooyu ak moom ak âge boobu mu tolloon mu jël rek ne teggiin mooy ne kon teggiin rek mooy régler mbir yi moo tax taalibeem yu bari kat ci téeréem yeeg correspondance am yeeg daan leen taggee boroom xam-xam nangam nangam waaye daan ko yitteel lool. mu ne alfatal adib daf ko yitteeloon ci bindam yi te mag ñi kat la leen defarit ci ron baay radiyallahu anhu jàpp naa ne la ci ëpp mooy am teg yéen ci ci ronam damay faral di wax sax saxaabi yi sax li ëpp ci lii leen jëriñeen ci kanam yonent bi am teg yéen nag bu yonent bi laajee ndax xam ngeen tax ñun allahu wa rasuluhu aalam maanaam kon maa ngi wax ne la seule solution wala boog sax ma bañ a exagérer solution daal di ci ëpp solo mooy am yar am teggiin c'est quoi am yar ak teg teggiin man damay faral di wax ne naa koy wàcc émission yu bari teggiin nag mooy yem fa nga war a yem ci wax ak ci jëf ak ci xam-xam ak ci maqaama ak yëpp rek teggiin sous-préfet compétence yi ñu ko jox préfet compétence yi ñu ko jox. da ci yem bu ko dépassé rek ñu ne violé na la constitution maanaam ci wax waxal li nga war a wax rek yem ci booy waxit ci xam-xam waxal li nga xam bu jeexee nga noppi ci sa bopp laa rawatina nag keneen bàyyi ñes bàyyi ñes bàyyi ñes rek waxal li nga xam ci bàyyi te dama naan bàyyi ñes ñun liñ ci xam ci zahir bi ci ay téere mi kenn mënu cee wax ba mu jeex al adab ci ñun tey mooy ne nga wax loo xam ci bàyyi nettali lu wér ci bàyyi waaye jëfee jàngalee bàyyi yow ci sa bopp bañ gis ci yow niñ ko gis ci Sidi Ali Cissé na meloon Cheikh Alhaji Abdoulaye Cheikh Ahmad Dame Cheikh Ahmad Tidiane ba ci xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi na fi gën a yàgg kattan ak wér ak ci njabootam gi yëpp ak it man damay wax ne tegg yi nit bokk na ca noppi ci lu sa yoon nekkut maanaam xam nga toog maa ngi koy nettali benn waay barki de mu ñuy waxtaan ci corona bi benn docteur ci ngodi ba maanaam ko xam nga fu mu ne comme rajo yi dañoo bëree ak média yi ak micro yi ku ne rek ñu tàllal la micro ne luy sa xalaat ma ne man sax dama ci am jàngat man xam nga Barham su ma la tàllaloo microphone wala man nga tàllaloo microphone ne ma ministre des affaires étrangères bu bees bu ca Chine lu ciy sa avi ban avis nga ci am loolu war naa ci am loolu wax dëgg yàlla loolu duñ ko tuddee avi Chine gële man ma nekk fi ngudi ba ñu xool ka méngoog seen euh, politique étrangère ñu jël benn doomu Chine man ñu tàllal ma fii rajo ci ngudi ba ne ma luy sa avi ci ministre le nouveau ministre des affaires étrangères bu Chine ma ne xam na ngeen baal ma sax yéen ñiy liggéey ci média bi yooyu moytu leen ko man waruñ ma laaj loolu waruma ci am benn avis waruma ci am benn avis bu ko defee nag buñ boo demee ba dajee ko xam ne laaj na la ko yow yow yàlla sama yoon nekku ci aw ma ci avis avis day doon loo dund loo am droit xam ci tuuti loolu ci ne mais wax dëgg yàlla euh, donc maa ngi maa ngi dénk sama bopp dénk ndaw ñi kat mooy teggiinu waaye nag rawatina tey li xew nga xam ne waxukaay yi dañoo bëri siiwalukaay yi dañoo bari ñu def attention ci xam ne kenn ku nekk li ngay wax dinañ la ko tegal benn par benn te li ma wax rek ci benn kilifa ma seetaan ko mu naan corona amul te ma gis ca saalam ba ma nga amee gel ma nga amee marcel di raxasu léegi léegi nit ñi seet si ko bëkk néeg bi ne leen sëñ bi dafa jàpp te mu ngi wax biti naan leen corona amul koy gëm ba respecté wuñ les mesures barrières xam nga sëriñ boobu it am na am na xam nga sëriñ laa koy xam am na am na am am am na responsabilité bu bi may tëjee it mooy ndaw ñi nañ seet ñi ñuy jox seen bopp. ñi ñuy jox seen bopp nag alxuraan wax naa ko léegi moo ñu ko tënkal wattabi sabila man anaaba ilaya sëriñ bi la gën a jege yàlla rek jege yàlla nag nu ko nit manifesté woo lu ëpp ñu gis la ci charia bi nga tënku ci ni ñu gisee xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi di yoot di ñëw di julli si léegi-léegi mu te mooy xalifa mu julli ci bitti jumaa ji lal basang ak naa ñu ñëpp gis nañ ko lal basang ci bitti jumaa ji gis ko muy jàngale Fathul Baari yi ci buntu këram di firi alquran waaw loolu loolu balaa ñu naan sëriñ bi lii ak baatinam beeg nangam déedéet dañ koy gis muy waaxu di julli ji di julli ci biti jumaa ji te mooy xalifa Baye Niass te lu mu wax ñu def di jàngale Fathul Baari di firi hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba corona bi jafeñ ñu tari nañu rassemblement mu tënku ci li réew mi tere dafa bàyyi bayaal bi dem buntu këram ne jàng moom dafa war di wéy ba léegi ci at yi mu toll nii muy jàngale tënku. te mën na xool njaboot gi yëpp bu ko defee it maanaam ñooñu maanaam lu lay xëcc jëmale ci kenn ma ne na doon yii nga xam ne suñu xalifa tey ba léegi loolu la ñuy woon te loolu la nampee ci ay magam lool la nampee ci waajuram Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass waaye yeneen yi vraiment ah, wax dëgg yàlla euh, lu jara lu jara xoolaat la damay faral rek di wax sama baat boobu ci français dama koy wax lu bëri on peut pas être nag plus royaliste que roi ñëwal rek Medina nga toog ci jumaa ji 24 heures nga seet xalifa bi nu muy dundee demal buntu këram nga defa 24 heures nga seet xalifa bi man j'ai sama constat personnel gàmmu gi te keroog ci buntu kër gi ci la la fekk bi ñu indee suñu addiya ci ceeb ñu baal ma sax ci wax ji waaye yàlla tax may wax bi ñëwee di ko jëbal sëriñ bi dama sellu ne sëriñ bi boo koy wax mbiru ceeb baa ngi nele wala xaaj baa xat maa ngi koy wax nag na ma jéggal ci waaye keroog dama seetlu ma ne bi nga ñëwee naan ko suñ addiyee lañu indi woon ji nga war a jox jaami yàlla yi ci gàmmo gi ceeb mu ngi ne ci bunt ba dafa mel ni dafa xat buggul sax ku koy wax mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri matériel yooyu wallahi sama sama seetlu bopp la nag bu fekkee noonu maa ngi ciy jégalu maa ngi ciy tuub ci yàlla ma seetlu yeneen jotaay yoo xamante ne nii boo ñëwee ne salaamaaleykum sëriñ bi bis dama agsi mooy keroog bi sëriñ bi eh, xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane nelawee imagineel ci suba ga bis bu jafee noonu ci dix heure moo tax ku bàyyi pare ci yow moo ñëw fekk ko ci buntu këram ci mbaar mi ñu ñëw boobu jébbalaguñ sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane boroomam ma ñëw fi ci mbaar mi di jëb di di di ko jébbal suñ bopp beneen yoon xam nga lu ma wax wallahi te j'ai des témoins oculaire ñu ko mën a ko ñu ngi ñëw di la jàll liñ bokk ñun ñëpp te di la ñaanal yàlla di la joxaat suñu bopp pour nga yeesalal ñu ma pare mu ne ma mais maa ngi lay déglu ah, maa ngi maa maa maa ngi lay déglu maa ngi lay suivre meraguma meraguma nag alhamdulilah bég xoolal adduna yëpp naan sëri Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane mais xoolal dal gi ko yàlla jox ba léegi sax mu ngi wéy liggéeyam ndaw lu ñëw di la jaale di la joxaat boppam li nga wax ne ko bàyyil sa xel ci li ngay wax nag bi waxtaan ak man foofu man dama yéemoon police a ngi fees dal ñëpp ak naan kañ lañ koy léeg ñaari jotaay yii daf ma frappé ci moom ñoo di ko wax waxi àdduna ca baa ngi ne le ci lu gàtt ci rek mu tàllal ne nii rek <laughs> ma nii man a yi nañ yollee ko génn dem am na ku ma nettali ne sant na doomam du ma tudd ndax bañ publicité ñu ko indil camion yi ceeb ci gàmmu ngi mu jox ko kenn ci doomam yi du ma tudd turam nit ñi ñëw di jël ceeb di jël di jël am ñoo ko sëriñ bi ni ñaa ngi jël <laughs> ceeb bi waaw waaw waaw kii nii rek ñu dem. ci lim suba tey bu suba mos naa ñëw ziyaara ngodi ba boobu Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi fi mu ñëw ñu defal ko reer moom oustaz Ibrahim Ndiaye mu ko fàtte ñu toog boobu maa ngi jógee Soudan bees ñu waxtaan ci xam-xam di waxtaan ba mu yéex a dem ca tànt ba wax ma wax ju xam du ma ko fàtte ba ilaa yawmal xiyaamati mu ne ma Ibrahim man dama bëggoon am ndaw ñu takku ñu bëgg xam-xam. ñu am yar ñëw ma ànd ak ñoom ñu liggéey mu ne waaye am na téere am na lu ma doon bind sax dama koo mujj far dugal sama ron lal ndax gisuma ne wallaay sëriñ moo ma ko wax Cheikh Mahi Mouhamadul Mahi sama nekk bàyyi ci nguddi ba kon daal li ma bëgg a wax ndaw ñi nañ xool rek mag ñi buñ leen def moroom mais ñu def leen nawle nawle nag mooy li ñuy def ñu def ko waaye bu kenn doon wàcc julli ci waxin Cheikh Mouhamadul mi tey kenn gënu koo xat <laughs> ñëpp moom la sëral day julli ji bu jàngale doon wàcc kenn gënu koo xat kon tey fatul baari bi <laughs> du ko du ko commencé kenn doon dajale rek dajale dajale ndax lim yenu kenn yenuwu ko mais lu ñëw mu joxe ba demoon këram léegi doo fekk doo fekk saako ceeb ñëw na ziara ngoti ba te ci laay tëjee mu ne ma Cheikh Ibrahim bi may génnee sama kër de benn shérif moo ñëw di laaj ne ma làmb limam yëpp muy cent cinquante mille ma génnee ko jox ko ko mu ñëw nga di ba ñu ñuy joxe addiye ubbee addiye ji cent cinquante mille adduna yëpp a ngi koy adduna li may wax adduna yëpp ko fekkee kon daal dama ne ndaw ñi li ma leen di dénk naa bu ma ko dénkee sama bopp ba pare mooy yar jàng xam xam Baye Niass shariatan awalan te bu ma ko waxee mooy xam Baye Niass sunnatan boo paree sax nag man dama yàkkum ne sax laa far la farq bayna shariati wal xaqiqati dama koy wax ma laa farqa bayna zahiri wal batin laa farqa bayna al awali wal euh, loolu daal buñ ko defee delluwaat ci jàng yi ak it bañ yàkkamti moom lay tëje bañ yàkkamti innal munbatta laa ardan qataa wala dahran abqa war gileem gi gileem gi am kattan te mooy moyens yi ñu am nii muy labbali rek labbali rek bëgg gaaw a àgg ci destination am gileem gi fakkatalu daanu mu njëkk a daanu gileem nga daanu njëkk mu dee yàgguñ fa njëmoon gileemam dee na innal mun batta la ardan xata wala dahran abqa yàkkamti man ngaa ñàkk sa gileem mën ngaa bañ yegg fi nga jëm kon nañ nañ nañ nañ def ndànk rek euh, dal am yar ci yar ci wax am yar ci teggiin ci kanam sëriñ bi ci peew yu Mawlana Cheikh al Islam te peew yu Mawlana Cheikh al Islam ma ko waxee du meddina rek foo mën a nekk dimbu boo bàyyi ñu wër la nga takk ay photoy Baye am melokaanu Baye fu gàmmu ga mën a nekk xamal ne yaa ngi ci péyu Cheikh Ibrahim da nga war a am yar ak teg teggiin foofa loolu mooy li may dénk sama bopp di ko dénk mboolem taalibe yi ñu ngi sant ñu ngi gërëm Barham Universel Média di leen ñaanal yàlla surtout yow Barham nga xam ne suñu bokk taalibe nga suñu soppee nga ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey lu rëy ci faydu bi te sama gëm-gëm la ma koy wax yàlla tax ñu ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq ni ma koy ñaanalee média pay bi yëpp dama laa sama bopp moo la gënal du dama laa bañ waaye nag maa ngi li ma bëgg mooy média pay bi moom yàlla yëkkati leen bañ gën a siiw Al gën a siiw France 24 a siiw CNN ma nga xam ne li ngeen bëgg lépp di ngeen ko liggéey yàlla yombal leen jumtuwaay yi yombal leen wér gi ak wërsëg wi yàlla defal leen tawfiq faj seeni aajo di dellu di ñaanal xalifa bi Mawlaay al Muazzam Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla dolli ko kàttan dolli ko wér ko fi lool sumb yi mu tàmbali yëpp mat ci dundam bam mu sumbaat yeneen noonu ñaanale waliyu ahdihil amini Cheikh Mouhamadul Amin Baba yàlla dolli ko wér moom te teq aw fanam ci kanam kanam ko ñaanal mboolem abnaaw Cheikh wa xulafaahu di ko ñaanal imaamul faydati Cheikh. xaaji ahmad tijaani ibnu sida ali Cissé ñaanal mboolem njaboot gi ñaan yàlla senegal yàlla def jàmm corona bi yàlla jëlee gaaw lool jëlee ko ci àdduna bi yëpp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa wa barakaatu nelaw gént gis yonenta boo jógee xam ne moo de kàddum ga daa neex du wax ca kaw te fu mu waxee ñëpp dégg ku soxla kàddu yonen ya oon bilaa i bandam ba moo de yàkkamti ul mos la waaxu ñasi te toppee yow foog nga laajal ma aw sam